Soga Fall waxtaan naa ci ak ministre de l'urbanisme ak maire Plateau ak préfet Dakar ak président commission marché ak chef de la division des Hauts ñu daje building administratif waxtaan ca waxtaan boobu ba ñu waxtaanee man nee naa leen bañu ma sax bokk ko ak état ak commune Plateau ñi defaraat Sandaga parce que boobu fekk na mu yàgg mënuma dellu si ca la dellu 2018 waaye li ma fekkee mu leer ma ci sama bopp mën naa leen ko wax réunion yooyu defaat nañ ci yeneen yu bari daje naa fi ak benn architecte bu nekk présidence waxtaan naa ci ak ministre du commerce waxtaan naa ci ak maire commune bi bind naa ci ay leetar saa yu ma déggee ñu wax dara ci Sandaga bind naa lettre kama war a bind lettre ne ko dégg naa li ville de Dakar maa ngi leen di fàttali moom moom bâtiment bi man waxuma waxu marché parce que bu dee dañuy wax waxu marché rek taxi yi ville de Dakar depuis 2010 ville de Dakar laalatuloon benn taxi bu jógee Sandaga dañ ko bàyyi woon ak commune Plateau ba bi muy lakk taxi ya fa daan génn 2010 ba bi marché biy lakk commune Plateau moo ko doon jël waaye nag boo moomee am sa moomeel ah, benn nit jógee fale daal di ñëw ne da koy toj yow mi nga xam ne yow lañ ko dénk ba que man Sandaga dañ ma koy dénk may maire de dakaar mu bokk ci patrimoine ville de dakaar dama ko war a défendre ci loolu laa taxaw taxawee ma ci leneen taxawee ma ci pour ñu jox ma marché parce que loolu la fi taajee pour ñu défendre patrimoine Dakar ñi ngiy liggéey lu ñu mën waaye bu ñu demee nag ba ñuy attaqué suñuy alal di ko jël par force di ko foqati ci sama loxo ci loxo conseil municipal bi war nañoo taxaw ndax man ëllëg ak si biir bu ma fi jógee maire bi fiy ñëw dana ne kat maire bi fi jógee moom da doon xoole ba nangu nañ lu bari ci ci patrimoine Dakar du ma ko nangu. lii nga xam ne 2014 lañ ko defoon Sandaga des ci ville de Dakar nga toog ba 2020 nga convoqué waat commission ne dafa am lu ñu fàtte woon te fàtte bi yëpp kat du lenn lu dul marché Sandaga parce que bu ñu ma ci defaloon yeneen bâtiment sama ah, kat te ñun li ñu wax ne dañu fàtte fàtte waaye ñoom fàtte yëpp marché Sandaga rek kon loolu leen intéressé loolu lañ bëgg a jot ci ville de Dakar duma ko nangu dana xeex maa ne woon damay bokk sax daf bokkatuma comme que ville de Dakar ko moom danaa xeex ba lu ma yoon may ma xam ne loolu la ma yoon may mënoon naa def ni mu def jël sama volontaire, yi yóbbu leen foofu jël ay nerf yi teg leen foofu ñu nekk fa di xeex bu ko defee ñu ne waaye politiciens yi ñoom de xeex politique rek seen poste yi duma ko def ndax mbas mi ku fi nekk di wax leneen wax lu dul wax nañu dimbale nit ñi nañ faju nañu respecter mesure barrière yi nañu fexe ba mbas mi génn suñu réew waxoo fi dara waxoo fi dara kon nag sàndaga man du tax nit ñi jéppi ma man fii dama fiy jóge tôt ou dama fi jóge waaye la ma fa nekk war a gérer li may gérer dama koy gere ba lu ma yàlla may ma jël loolu daal laa ne woon danaa ko waxtaan ak waa Ndakaaru waxtaan naa conseil municipal bi looloo ma waroon pare naa ci conseil municipal bi maa ngiy wax waa Ndakaaru seen alal la sàndaga ñëpp a ko moom ñëpp a ko bokk moom Dakar dafa war a am histoire mën ngaa nekk ci dëkk boo xam ne rek lu màggat rek ñu taj doo restauré xool leen fii ngeen nekk ni xool leen ni mu jekke ah mi ngi nii dañ ko restauré dañ ko defaraat ba mu rafet gaar baa ngi nii état daf ko restauré détruire ko daf ko defaraat ba mu mel nii yànj lool man loolu laa xam bâtiment yi fi nekk muy préfecture muy gouvernance muy chambre de commerce yooyu yëpp dañ leen war a restauré parce que bu fekkee ne pour toj la rek tabax ay immeuble waaye jam ñaajo mooy la nouvelle ville nañ dem jam ñaajo ñu tabax foofu des nouveaux bâtiments ah waaye lii fi nekk dëkk bu nekk capital bu nekk day am la vieille ville ak l'autre ville ah bu ñu bëggee ay building nañu dem génnee ko feneen waaye li fi nekk màggat ñu war koo defar mu baax nga xam ne boo ñëwee touriste bi bu ñëwee di xool dana am loo xam ne dina ko gis loo xam ne du ko gis Dubaï du ko gis Paris du ko gis New York waaye bëgg mel ni Paris Dubaï ak New York di tabax ay immeuble rek di dem li fi nekkoon yépp ñu raser ko ah mel ni dañu bëgg a effacer la mémoire ah de Dakar l'histoire de ndakaar loolu man duma ko seetaan duma ko nangu loolu daal laa ne woon il faut nag ma wax ko wax ko d'abord waxtaan ak conseil municipal parce que man lu may def damay ànd ak conseil municipal bi man du ma ne man rek la déedéet damay ànd ak conseil municipal ku nekk joxe sa xalaat ñu jàpp leen yëgal ko waa Ndakaaru di wax aussi waa Ndakaaru seen yëf la seen xeex la jàppale leen ci ba vraiment sàndaga mu nekk loo xam ne ville de moo ko moom day des ci patrimoine am commencé nañ ko toj ah duma ko bàyyi noonu wax dëgg yàlla mënuma parce que moo ko bàyyi man sax danaa am lu may reproché sama ko loolu laa ne woon dama koy wax